C'est dans le cadre du projet Défi Archipelago, il y a entre autres activités la formation en entrepreneuriat qui est dédiée aux jeunes, femmes et migrants de retour. Aujourd'hui, euh, nous sommes dans la région de Dakar pour dérouler cette activité qui va durer trois jours. Donc l'objectif, euh, c'est d'aider les jeunes à comprendre comment créer une à comprendre comment la gérer et à comprendre comment la développer. Et donc nous avons déroulé ces activités dans les régions de Louga, dans la région de Diourbel et de Kolda. Nous terminons aujourd'hui par euh, la région de Dakar. Euh, parce que euh, le projet Défi Archipelago va également former euh, dans ces différentes régions des jeunes dans des métiers sur des filières porteurs. Donc on voudrait qu'à côté de ces métiers-là, qu'ils puissent au terme de ces formations-là, créer leur entreprise. Donc ça c'est sont au nombre de combien les au nombre de 25 euh, au région de Dakar et 20 dans chacune des autres régions en formation en entrepreneuriat. En ce qui concerne les métiers, au total sur l'ensemble des, des quatre régions, nous aurons à terme 450 jeunes qui seront formés dans les les métiers. Est-ce que vous constatez euh, un nombre assez élevé de jeunes femmes voilà, qui sont engagées dans ça euh, Tout à fait, tout à fait. Et c'est partout hein, où nous passons, les femmes sont là, elles sont déterminées. Et voilà, même dans l'organisation des groupes, c'est elles qui prennent le pouvoir. Euh, J'ai vu à Kolda, par exemple, les jeunes les hommes revendiquaient un tout petit peu la parité. C'est pour dire qu'elles ont pris leur position, elles ont pris leur place et elles sont en train de se battre parce que pour la plupart ont démarré des activités. Il s'agit de les former pour pouvoir tenir ces activités-là, également pour pouvoir les montrer où sont les sources de financement qui sont notamment mises en place par l'État, mais également les accompagnements que les différentes chambres de commerce peuvent apporter à ces jeunes-là Donc c'est ça un tout petit peu l'objet. On va travailler en synergie euh, pour pouvoir mettre en place tout le dispositif qu'il faut. Est-ce concerné seulement les, les gens qui, bon, les jeunes qui ont tenté un peu l'immigration ou bien non Ils sont, euh, les, les, les, les, migrants de retour sont 30% dans le projet. Il y a 30% de migrants de retour, 40% de femmes et 30% de jeunes. qui sont promoteurs, qui sont étudiants sortis, euh, qui sont diplômés des écoles, etc. Donc euh, c'est une mixité. Les migrants de retour, il y en a ici. Euh, et donc euh, on les prend en charge dans le cadre de ces formations-là aussi. Euh, les gouverneurs, les préfets ont participé aux sélections, les pôles emploi, etc. nous ont aidés à faire ces sélections dans, dans le cadre de la transparence. Et ils continuent à nous appuyer vraiment euh, dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets-là. Donc c'était une question à souligner. Je vous remercie. waa programme archi défi archipelago chambre de commerce bu Dakar moom moo nekk di ko mettre en œuvre ñu tegoon ko nag ci benn contexte boo xam ne dafa tombé woon euh, li nga xam ne moom la ñuy tuddee immigration irrégulière maanaam ñiy jël mbëkk mi bari woon lool. ñu ne woon nañ ko teg pour fexe ba nga xamante ne xale yi nga nekk ci euh, quatre régions notamment Dakar dinañ former leen pour que ñu mën a am xëy xëy moo xamante ne day sukkandiku ci lu ñuy wax entrepreneuriat maanaam dañ leen di former ñu am xam-xam fexe créer ñoom ay emploi am entreprise euh, di fa liggéey ba pare yi tamit di jël neen di fa liggéey mu méngoo tamit ak li nga xamante ne moom la état bu Sénégal nekk di def ndax dañu jàpp ne ndaw ñi bu ñu amee formation ba pare au lieu ñu toog di xaar ku leen jël pour ñu liggéey war nañoo mën a créer li ñuy tuddee ay entreprise di fa liggéey daan seen doole pour mën a am lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu jëriñ loo xam ne mën na leen jëriñ daa waaye tamit ñu mën a recruter ay nit ñu fay liggéey loolu moo nekkoon solo sa ndaje bi nga xamante ne amoon na fi tey te ñu fexe ñu ñu bëgg a former fii ak ñetti fan lu toll ci ñaar fukki xale ak juróom muy ay euh, xale yu góor ak yu jigéen ak ñoo xamante ne dañu demoon jël gaal gi ñibbisiwaat mu nekk nag lu am solo ndaxte te ñooñu tey bu ñu leen formé dinañ mënal seen bopp comme ni ma ko waxee sànq waaye tamit dina tax ba nga xamante ne li ci li ñuy yëngu muy filière yoo xamante ne day tax dëkk bi gën a mën a jëm kanam dina gën dina am solo lool ci suqaliku dëkk bi loolu moom moo taxoon euh, euh, Défi Archipelago daal di teg projet boobu noonu ñu projet boobu yi tamit dina ci région bu Dakar dina am trop euh, njeexantil ndax région bu Dakar dañu nekk foo xamante ne xale yi comme ni ma ko waxee sànq si nasaraan toogatuñu rek di xaar ñu ngi si ñu ngi activer wu di jéem a xool ku nekk di xool loo def pour mën a am loo pour mën a am loo mënal sa bopp mënal say jur waaye tamit mënal sa dëkk. te xool nañ ba gis ne au delà de filières yi nga xam ne moom la nit ñi moom la xale yi doon gën a jël léegi même dañoo commencé di am li ñuy wax ay filières innovantes. ndax boo jëlee lu mel ni développement durable ñu ngi dem ci ay nu ñuy revaloriser déchets yi nu ñu leen di gérer par exemple da gis ñoo xam ne dañuy jël tey pneu yi ñii di jël euh, granulé de pneu yi di si def ay gazon ñii di ko jël di si def ay meuble ba nga xamante ne dina am beneen dund boo xam ne mën na ko am ñii di tamit nag métier gaz ak pétrole bi nga xamante ne exploitation bi du yàgg dara mu commencé commencé na sax buñ ci former xale yi ak métier bâtiment dina am solo lool ndax dëkk bi dafa doon dëkk boo xamante ne dañ koy tabax te buñ koy tabax nag képp kuy xale di ndaw war nga si mën a indi sa wa sa sa sa pàcc ba nga xamante ne liggéey bi dina mën a yemb ba ëllëg émergence bi nga xam ne moom la ñu bëgg ñu mën koo am